salaamaaleykum Saf yaa ngi fii ci Dakar instant ñu bëggoon xam lan ngay sentir tey ak lan moo waral sabar gi tey ak instant bii nga toll looy sentir. ah fu mu ne ni moom mën naa ne xale yi dal na moom ndax man lañ bëgg ah xale yi moom kontaan naa si ñoom ba si Tuubaa aw ba seen fay man daal xaw toolu yàq waaye ba dugg daal ñëw ñu def fi nga waaw ndeysaan euh, mbokk internet yi Dakar instant ñoo ko gisandoo ñu ngi ci sawar gi organisé par euh, Saf Neex eh, ñu tuddee ko sargal Saf xale yaa ngi fi def ba mu baax def ba mu très bien ngeen leen tey du yomb tey Saf dana wàccee fii yóbbu ko ba zéro ndeysaan li nga jël sa bés bi wóolu wóolu ma si wóolu ma si ba mu jeex ne alaaji fay yaa may tëggal lii ndax seng seng ku leen déplacé da leen di fay xaalis bu bari waaye da nga wu ñëw ba seng seng ne ma yaa may tëggal te pare soirée yi may tëgg chaque mardi fee ca laskala yi may tëgg chaque mardi kenn du la fa njëkk barki yonent bi chaque mardi yaa ngi foofu ngay nit ku baax nag ngay nit ku baax di nit ku oyof barki yonent bi bu doon keneen la daf may fay xaalis bu bari xaalis bu bari ndax man tëgguma tëggu ñàkk fayda du ma tëgg ba pare di dem noonu si ñàkk fayda tëggu ma tëggu yooyu barki Seydina Muhammad ndax seng seng ku leen xool xam ne lu am fulla dañuy tëgg lu am fulla dem suñu yoon waaw ndax daray ñàkk fayda yëkkatiwuñu tey jii Oumy Mbodj mii toog ba ñu xamante yàggul waaye samay soirée du ko raté tey jii bu xewle woon du ma ko laaj dërëm ndax ku la yëg rek a la sonal barki Seydina Mouhamed mook waa jëppal yi yëpp mook waa jëppal yi yëpp duñ ko raté waaw looloo tax tay saf ba ma nee damay safaru ma ne ko saf yow demal sa ginnaaw bandang mi see sa programme amoon naa ko tey lépp laa àndul ki ya la yëg rek a la sonal te lolay aduna waaye nak nañ dem ba ci kanam nañ dem ba ci kanam ndax ndax Aziz ta mi ngi ci ginaaw Bass Thioung mi ngi ci ginaaw fi toj ma la wax lolou ndax sala seng seng eh dégg nga damay dellu si baara mbay bi mbay ma dem saa waaw sama waa kër ñu ngi fi sama xarit bu démb ak ñoom Facha Mara mënuma tudd la Zara sama marraine bi kontaan naa Ndeye Gueye sama fecckat préféré ñëw nga sagal nga ma bu leen fàtte Bas Cung mu ngi fi Pagaay Mbay mu ngi fi ñëpp ngi fi ay namaray lii léegi lay dara commencé. ay voilà moo ko internet kii mooy Ouzin Keita Ouzin yaa ngi ànd ak Dakar instant nga ñëw fii ci sawar sa doom ndey eh, saf neex loolu mën a wax tey eh, ci bis bi. ah dëgg du neex ah dëgg du neex xam nga tey saf bu xewle. xam nga saf tay bu xewee lu mën ta ñàkk nañu teew ndax sama nit dafa bokk si man macha allah tay la tay suba la kon nee naa leen ko waxee tay la tay suba la nett rek dañuy bàyyi Ouzin mu dugg si dafay wax ne ma ne ma ni noonu dafay nu mu mën a ne kookoy Ouzin waa Joppal xam nga saf neex bu nekkee sama nit xaal nekk sama xarit bëgg ma lool gëm ma lool bu xew ne damay ñëw damaa xaw a jege di sa lu ma ta ñàkk dafa bokk si man damaa bëgg saf neex kuy sa mbokk di sa xarit di sa nit ah ñu ne dafa tamal lu baax tagame ay guden tagame yo xaay sempa waa jëppal jóg leen taxaw jóg leen taxaw jóg leen sama fas yi kuy xale bës kuy xale bës kuy xale bës kuy xale akan waxal waaw de ma bëggoon na ngeen tàgg sama yaram bu baax